ñoo ngi fii ci sous-préfecture bu Yamoussoukro fi nga xam ne askan wu takku lañ fi fekk ñu ñëw rek ngir wut lii di ticket match bi nga xamante ni jongante bi nga xamante ni moo di diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire mu di huitième de finale nak. askan wi fii ci Yamoussoukro fépp fu ñu dem fi ñu newoon ni que rek am na ay ticket yu ñuy jaay fekk nañ fu mbooloo bu takku ñu ñëw rek ngir wut ay ticket. lu si ëpp nag ñenn ñi nee nañu ñëw nañ fi depuis démb ñeneen ñi nee nañu ñëw nañ fi depuis tey si suba si fajar am na ñoo xam ne sax dem nañu ba ne ñëw nañ fi depuis barki démb waaye mënuñu fexe di ba gis ticket ñuy laaj nag fan le tike yi nekk ndaxte gisuñu fenn foo xamante ni ñoo ngi koy jaay ticket am na ñenn ñoo xam ne sax ñoom nee nañ dégg nañ ni que ticket yëpp euh, Abidjan la yam dañ ko jaay waa Abidjan te ñoom jotuñu ci te match bi fii la war a xewee nekkul loo xamante ne lu tegu si yoon la ñuy laaj rek autorité yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi ñu wax leen fan la ticket yi nekk ñuy fàttali nag euh, match bi dina nekk match boo xamante ne comme ni ngeen ko gisee match bi day promettre loo xamante ni match bu mag la ndaxte comme ni ngeen gisee fii ñii ivoirien yi ñoom nee nañu que ñoom ñooy gagné match bi sénégalais yu ñu dajal fii tamit ñoom nee nañu que ñun ñooy gagné match bi loolu nag am ñeneen nag ñoo xam ne ñu ne ku mënte gañe si match bii rek jàmm doon ndaxte ñaari pays yoo xam ne mu di Côte d'Ivoire ak Sénégal ay pays frère lañu amul dara lu leen mën a teqale te bu dee sport rek la espor moom ñëpp xam nañu ni la kaf agré léegi nag ñoo ngi fii nar a jóge fi nga xamante ni moo di sous préfecture bu Yamoussoukro bi ñuy jaayee fu ñu yaakaar ni am na ay ticket te gisaguñ ko ba léegi wante public bi ñoom nee nañu dinañ fi toog rek ba am li nga xamante ni moo di ticket bi ñu soxla.